maa ngi lay suivre problème boo defati fii ah dama lay dàq tamit c'est clair. ok. ñàkk jom nga. jërëjëf quoi billaay war na yàlla. yow kay dafa sa liggéey rek ñun ñu def suñu liggéey. waaye billaay kon léegi man doon ma def benn problème léegi moom xam naa ne sama waay. an papier bi ma la joxoon démb. mi ngi nii. pare non. Ah, salaamaaleykum merci ah. maaleykum salaam. waay. tamit wóor na billaay day wax donc wóor na yàlla daa ñëw donc pour jéem a jaxase nga wax ne waa xoolal moom daanaka maa moom leen leen wala mbir ki dem lan la ci circulation bi léegi après bi nga ko ba bii nga ñëw mën a ko waaw ba daan dem léegi man amee passeport laa doon lijjanti quoi ba ne ko léegi jënd àll ba doon defar ay passeport léegi da nga may jox dix mille léegi après boo ma joxee dix mille wala ci laa jënd timbre bu cinq mille kii ko léegi après dama ne woon naa bàyyi ba nga kii ba nga seetlu ma jox la beneen cinq mille bi cinq mille baa ngi nii mi ngi nii. yaa ñàkk jom commencé ti nga. ndéeréer kam si. kii keroog ñoo fi ay problème carte d'identité. waaw ah tey mu ñëw ak problème passeport eh xam nga fi ñuy defaree passion doyen. waaw kii dama koy dàq c'est fini. commissaire ko topp. li ma la wax rek bu ko topp. mu nekk rek yàlla tax ndax amut jom. yow waay lan loo wax wala kulli yow xoolal wóor na la tuuti léegi yow lu tax topp ma rek ba commissaire dàq ba nii lu tax nga nii ma nii ah yaa ngi nii dëkk bi taxaw di jaay affaire passeport ba tax commissaire rek di mer bëgg maa dàq yow loo ma taxaw ni lan la. xanaa bala ngaa wax nga xam lan laa fi wut. bay yaa bi ba pare man. passeport kañ nga ma waxoon fii ak un bi dafa jot. déedéet te bi wax dégg naa baax li nga ma fu ma doon dem ma ne naa fi jaar nuyu la. loolu doogu doogu doogu de moo fi ne nga ratatati fi lii lépp. Eh, waay kon kay man maa débordé. xam nga loolu rek jàmm. waaye xoolal caa ma gis baax na.